sëriñ Aliou Guèye daan na wax ni nee na réer réer daganoon na bu jëkk waaye léegi daganatul waaw nee na réer daganoon na bu jëkk ndax da nga gis ku la jàngal doo amit jumtuwaay boo jànge waaw nee dama dem ndar di dégg su turu papa mais maa ngi soog a ñëw ci kër gi rek nee na dem dégg ko rek ñu ñuy wax mbiram ne fekk maa ngi soog a jóge ci bi rek ma ni man duma xaar ba mu ñëw ndar lay dem nii maa ngi ñëw fekk ko mu ngi sew a sew a sew ba bu ko ngelaw ëppee rek mu daanu ndax responsabilité walla mu ni du lekk du naan mu ni mi ngi sol benn mbubb boo xam ni espèce abbaye la bu ñu ubbi doublé benn sooy boo xam ni ca laa dégg bata inuha min istabraq waaw wallaay nee na ma gis ko mu ànd juróom ñu mel ni moom juróom ñu mel ni moom wallaay ne ma di waaye lii lan la ñii xanaa ñoo bokk ndey ak baay ne ñu dima leen limal la شيخ ذنون اك جرن ابن العربي اك شيخ خليل كمرة اك جورجي اسيم جاي ندم مجوار نما رجل لد نك ندخ ننو سنسي اك ننو مل ننو سيريا موني تلو جفل دنو سيريا موني تلا جك جس نتكو سيريا واو كدو فويا درام mu ne ci la jëkk a gis nit ku sérieux ku dul fooye dara nee na ma it mu rus rekk dem jënd kayit rekk ak daak xalima bind sayfi yu ba mu jeex ma dem ca marché ba jaay ko ci ñeenti fifty ne jënd ca mayit sama bax sama palman ak ne solu ba jëkk rek ñëw ci seen biir waaw tabarkàlla ne ku làkk rek ma làkk nee na ñu mel na rek kenn xamul fu ñu génne kenn xamul wallaay waaw nee lu ñu wax rek alquran la lu ñu wax rek hadis la wallaay waaw moo tax mu daan wax ni yéen seen jamono kenn sañu ci réer mais kenn sañu ko aljahl fi hada al asr nee maqul nee na maqul kenn du ko nangu foo wàññeeku gis jumtuwaay bu la mën a jàngal waaw looy xaar waxtaan jaru ko waaw jaru ko jaru ko moo tax al imam wax na ko ne banoo jàngi tiitaroo taxoon ne banoo jàngi tiitaroo taxoon ndeke xam-xam bu ñëwee moom dellu ca boromam waaw waaw al imaamul Ghazali moo ko ne banoo jàngi tiitaroo taxoon waaye ndeke xam-xam bu bare rek dellu ci boromam loo ci mën talab na al ilma li gayrillah fa aba an yakuna illa lillah waaw lu ci nit man talab na al ilma li gayrillah fa aba an yakuna illa lillah lu ci nit man banoo jàng tiitaroo taxoon fa xam-xam ba dikkee lank na dellu na ca boromam xamul luy tiitaru waaw waaw